salaamaaleykum man Adama Isaac Diop président regroupement national des cheminots de France alors euh, tey jii li ñu fi daje mooy euh, est en prélude d'une marche bu ñu doon organisé euh, le mardi septembre incha allah alors ñu bëgg de Thiès à Dakar alors li tax ñu bëgg a marché am loo xam ni ñu demee plan social 2003. chemin de fer daf ñu ko dese muy l'arborisation sociale bi ñu jëlee cinquante six ans ba dem parce que bi ñuy dem plan social le protocole d'accord bi nga xam ne moo taxoon ñu dem romb base juridique bi il y avait les six syndicats yi représentant les travailleurs ñoo ko signé le ministre de tutelle signé ko le ministre des finance signé ko le ministre du travail signé ko ñu jox ñu protocole boobu def ci un montant de 425 millions pour nous accompagner ñu joxe les 425 millions alors ñu jox ko le directeur général à l'époque mu jël ko def ko dans un compte bloc pour que à chaque fois kenn atteint l'âge de la retraite ñu mën la verser ses cotisations ba mu mat pour nga am une retraite à 60 ans mais malheureusement bi ñuy def le protocole d'accord di ko def à l'âge de 60 ans da ci sóoraale wu IPRES alors que su IPRES moom mooy fixer l'âge de la retraite à 60 et non l'employeur biñ demee IPRES IPRES ne leen je ne suis pas encore au-delà de cinquante cinq ans donc les retraites vont être liquidées à cinquante cinq ans ñu bon maintenant les cinq ans qui de cinquante sixième au centième anniversaire mu ñu kooku ñun duñ ko jël l'ICC liquidateur libérateur nañu léegi on va aller à l'IPRES war commencer naka la ñuy négocier un protocole d'accord et effectivement biñ ne IPRES IPRES xamal ko ni les cinq ans yi nga xam ne ñoo topp ci cinquante cinq ans yow liquidateur bi na nga koy jël rembourser les les les parce que su fekkee ne indi nga ko fii ci ñun ñun bu ñu leen koy rembourser dañ ci def une pénalité de 40 pour cent wala deuxième solution mooy ñu bloquer seen pension ñu rembourser déjà li ñu jot a feeku ñu xaar 60 ans. donc ñaari solution yi baaxul troisième solution lañ opté woon entre le liquidateur Amadou Kébé et le directeur général de l'IPRES Alassane Robert Diallo depuis lors ñu ngi xaar le remboursement des cinq ans bu ñu ko jot et pour rappel euh, cet argent là bi que euh, le protocole d'accord arrêté ba ñu jox ko le directeur général Ibrahima Niang moom dafa jël suñu xaalis bi ne daf ko lebal état bi 425 millions depuis 2003 ba léegi ñu ci jot bi ñuy rencontré le président Macky Sall en 2007 mu nekkoon ci euh, campagne présidentielle fekk ñi ngi nekkoon sous la conduite de Abdourahmane Cheikh Abdourahmane Chérif Abdourahmane Tilala mu recevoir ñu ne ñu léegi danaa leen jox un point naa ko réglé seen euh, euh, comment dire mémorandum bi les autres points alors dinaa fexe ba ñu ma ko réglé bu ma dee soité ci gouvernement yàlla def mu ñëw comme président de la en 2012 biñ ko saisiré mu ñu léegi danaa leen joxaat seen xaalis au complet muy en 2013 mu jël 510 millions dugal ko dans le compte de la liquidation le liquidateur woo ma ne ma say l'argent est disponible maintenant l'état nous a remboursé ñu dem seeti le directeur e à l'époque muy Alassane Robert Diallo pour ma réviser seen i pension il faut donner un minimum de 100 millions alors ñu d'accord si ñu ngi ci cent le liquidateur euh, euh, Amadou Kébé yi ngi millions jox ko Robert Diallo pour la régularisation de nos pensions et effectivement les pensions ont été révisées au moins deux cent pensions ñu fay les rappels de pension et le point là li ci des mooy ñu xam ñu def le point sur les cent millions qui ont été versés au niveau de l'IPRES jeex na jeexul kan ak kan lañ ci révisé ak kan kan donc nous avons droit de regard sur les cent millions yi xam ne suñu xaalis la léegi li ci des nag boobu ba tey dilatoire moo am suñu diggante ñun avec les fonctionnaires de l'État le président euh, Macky Sall son excellence def na li war def yëpp na xaalis bi dolluñu ko mais xaalis baa ngi diggante les liquidateurs les fonctionnaires de l'État ministère des finances moo ñu ko jox ba barke démb j'ai eu des informations que di le ministre le premier ministre a donné des instructions pour ñu fay ñu suñu xaalis dégg le dossier ma nga au niveau de l'AGE pour paiement ñun foofu lañ d'accordul ak ñoom parce que lii dem AG c' est les contentieux de l' ex RCRS lépp lu dem AG ex RCRS la wala contentieux ex RCRS alors que ñun du contentieux social ñun c' est un protocole d' accord moo lié suñuy droit c' est la base d'un d'un protocole d' accord la ñuy réclamer suñuy droit donc on n'est pas d' accord aujourd'hui ñu naan dañuy négocier le protocole d' on demande l' application stricte du protocole d' accord d'où le paiement le remboursement de nos cinq ans de cotisation sociale loolu daal lañu ñu am lu ñuy wax léegi nag et Macky le président Macky Sall mi ñu jëloon tamxarit 2007 jour tamxarit 2007 keroog kër Chérif Abdourahmane Tilala la ñu ndog lañ lañ lañ tamxaritee bi yoon aussi nous à deux jours trois jours de tamxarit dañu bëgg jour tamxarit bi au plus tard ñu jot suñu xaalis parce que mardi la marche xayrun bu ñu joxul suñu xaalis mu ñu dëkk ay nii dem nañ ci ay wala keneen ak keneen suñu xaalis daal mi ngi dans la caisse de la liquidation nañu liquidateur woo fay ñu suñu xaalis loolu lañ bëgg mais pas autre chose bu ñu defee juboo am bu ñu ko te bu ñu marché nag fay ñu ñu dañuy dellu si waat bu ñu jógee Ndakaaru organiser woon beneen marche tant que jotuñu suñu xaalis on va organiser des marches successives marche ko marche incha allah rabbi te it nee nañu mag li ma dégg ñu wax mag kenn du ko dig donc nag mënuñu xaar ay suba ak ba pare li ci des nee nañu mag aussi kenn du ko lebal te effectivement dem nañ ci banque yi ñu ne ah vous avez soixante-dix ans dootuñu leen lebal kon fu ñu jëm donc nag dañuy jox lu ñuy ñoreel jàmm nañ ñooy foofu lañu ñu mën taxaw foofu la ñu en tout cas Thiès les Chinois ne sont pas contents et on est prêt à une marche mardi incha de Thiès à Dakar.